بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين نجي ngi sant سبحانه وتعالى ديكو wa ta'ala ونجو ak dagg-dagg boo xam ne lépp yiw la alhamdulillah ci yërmandeem ngëneelam baaxeewaat nañu ñëw dajewaat ngir wéyale ñu sàkku xam-xam nu yéwénal suñu diine rawat na suñu pas-pas ñu koy dooree ci darsul aqida ñoo andon ci ak al aqida ak taxawiya ñu tàmbalee woon ci maana la ilaha illa allah maana ash-shahadatay eh, ñu dugg ci al asma wa sifa legi mu ngi mel ni ñu ngi ci usulu ahlu sunnati wal jamaa wala mabadi'u ahlu sunnati wal jamaa bu la neexee nga ne manhaj ahlu sunnati wal jamaa kon mooy cosaan yi ahlu sunna tënk seeni pas-pas seeni jëf wala muy ay doxalin maa nga tuddee ko dundin kon tey nag ñu ngi benn ci yooyu gën koo fedd li mooy xëtug ñetti téeméer ak ñaar fukk ak ñett ci nusxa yu niroo moom cheikh bi mu ne wa nattabi'u sunnata wal jamaa ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة نقول في نيتي مير يوم تدو ولا غا تالال كو غاني نيتي مير تدونا السنه تدونا الجماعه تدونا الشذوذ تدونا ال... فرقة السنة لم مملو ليرلا سنة وطريقة النبي صلى الله عليه وسلم في العقيدة وفي الإبادة والتعامل والأخلاق fu السنة رجع فاليويو سنة mooy yoonu yonent bi wala jàngaleeg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci pas-pas jaamu yàlla jëflante jikko kon mu ne ahlu sunnati wala jamaa dañuy topp loolu waaye tudd na baatu al jamaa li mu jublu ci al jamaa mooy as-sahaaba wa taabi'uuna lahum bi ihsaan ila waqtina hada aljamaa lam ca jublu mooy saxaaba yi yi déggee woon ci yonent bi sallallahu alayhi wa moom ak ña fekk ci ca loola ba waxtu ñu toog ñooñu la tuddee aljamaa ñooñooy mbooloo aljamaa fii bu ko déggee mukk majorité parce que mos ma nekk قل الجماعة في والمجتمعون على منحج النبي سمين الجماعة ولا واحد دونت كم موتي في الجماعة على هذا الفيديو موتا هون إبراهيم عليه السلام يسود ديكو أمة أمة كاي موي مولو خير مي لدون نك تي مولو مو داجي تي مو مولي تيكو مو نك أمة كون جماعة kenn la ñaar la ñett la waaye ñu ngi ci manhaju nabi ñoom tuddee al tuddee aljamaa ñooñooy jamaa kon moo tax mu dugal ko shuzuuz mooy beddeeku beddeeku beddeeku bu mu tuddee shuzuuz nag mooy biduuni dalilin shar'i mooy beddeeku boo xam ne beddeeku mi bu beddeeku ci xelaatam amul benn tegtal bu koy dooleel léeg-léeg nga gis ñu wuute euh, ñeenti mazhab yi fu ñu ànd rek ñu tuddee ko jumhur mais léegi nag nit ki wuute ñeenti mazhab yooyu yëpp fekk fu mu téye ma addan yi kon kooku duñ ko tuddee charge الشاذ مويكي بيرو بدون دليل ولكن باتباع الهوى فك عند لا تكتل فايدا توب بانيخو بكنام من لولو بوكو لك بروغرام اهل السنه والجماعه ولا معنى الشذوذ ما تعارف عليه المسلمون بدون دليل loo xam ne julli bi daal dëppoo nañu ci mais munoo indi aaya nga ne lii mooy dalilam munoo indi hadith nga ne lii mooy dalilam waaye ñoom dëppoo nañ ci loolu mooy aada boo xam ne sunna dàqu ko dalil dàqu ko képp ku booru aada boobu dañuy wax ne shuzuuz day nekk charge ndaxte yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu mooy sama xel yëpp dëppoo ci benn mbir lu dul dëgg mu ne loolu mënta am kon am na jikko yu bari yoo xam ne dañ ciy déggoo kon nit ki nu mu mun a mel na respecté loolu waaye bu beroo ŋàññi ko rek mu nekk charge day ne ko koo xam ne daa beru ñeenteel mooy al furq luy indi tekkale ko du manhaju ahlu sunnati wal jamaa lépp lu indi teqale koo du manhaju ahlu sunnati wal jamaa niñ ko waxee ndax noonu la demee la moo tax day jar xóotal ñun ñëpp d'accord nañ ne aqida foo ko yëkkati rek teqale ko ñëw loolu day tax ñu ne dootuñu jàngal aqida abadan kon il faut ñu xam cheikh bi fa muy waxee aqida mooy diine te foo yëkkati aqida rek teqale ko dina ñëw parce que yonent xeex nañ ma a umamihim bi sababi aqida mais aqida boobu na nga xam ne moom la ñoŋal ña ca daje kenn la ñaar la humul jamaa ñooy mbooloo mi ki wuuteeg loolu mooy achaz mooy kooku mooy ki nga xam ne moo beru kooku nag mooy indi furqa parce que kooku mënul ànd ak mbooloom abadan mënul ne kon yii mu jëmmal lépp dafa am ay ay tegtal niñ ko waxee ci sunna niñ ko waxee ci jamaa niñ ko waxee ci xilaaf shuzuz furqa loolu yépp daa am ay ay tegtal kon boo déggee ñu ne jamaa mooy mbooloo jullit yi mbooloo lañu ñu wax de mbooloo jullit yi mais mais ban mbooloo mooy alladina ijtamaw ala alkitabi wa sunna ñoo ñooy mbooloo jullit mais du majorité bi parce que majorité bi ba idun an zalik bal jullit yi ci seen bopp boo leen seetee ci adduna bi minorité lañu minorité lañu jullit ñi seen bopp minorité lañ kon moom la muy tuddee mbooloo fii mooy alladina tamassaku bil kitaabi wa sunna humul jamaa ci loolu nag ca sahaaba ya ba fii ñu ñooñu ñooy ñi nga xam ne la topp du sax du zaat topp ñu jëmm déedéet toppuñu jamono toppuñu appartenance mais ñoom lan la ñuy topp li ñuy topp mooy hudan fan la jub ne fan la dëgg ne ñoom loolu rek la ñuy topp dong amul leneen ndaxte wa xilaaful huda dalaal ndaxte safaanu jub lan la réer وخلاف الحق كذب صفا نو دغ لان لا خلاص وخلاف العلم وهم صفا نو خم لان لا غلم كون لولو موتاخ فاموي واخي نانتي باي خيل واخ دي دغ لا موي اتمسكو bil kitaabi wa sunna ku mer ci loolu da war a seetaat sa bopp da war a laaj sa bopp kon lan la ñuy jàpp yàlla la ñuy ak yonent bi am ku mer kon lan la ñuy gëm lu dul yàlla ak yonent bi alquran la ñuy appliqué am ko jàpp ne da ngay diinga kon ban téere la war a appliqué bu dul quranul karim kon loolu mooy manhaju ahlu sunnati wal ci lolu euh la borom bi subhanahu wa ta'ala leral fi dayok yonentou bi sallallahu قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وآية بو نبولير بولير نانيلا في إبراهيم mu ne yonent bi waxal waxalal ñiñ la yónni ci ñoom kon ñu ñëpp la nan leen wax ne su fekkee ne day bëgg ngeen yàlla bëgg fii nag day yóbbaale ngëm ak wulu su fekkee ne gëm ngeen yàlla wulu ko mu ne waaw mu ne fàttabiwul kon topp leen ma déglu ko kon topp leen ma dëglu ma bu fekkee li ngeen wax dëgg la parce que ki ngeen bëgg ki ngeen gëm ki ngeen wóolu ki ngeen yaakaar moo ma yónni garanti ma du dañuy wax ne ndaw dañ koy jàppee ka ko yónni du noonu ah kan moo yónni Muhammad borom bi tabaraka wa taala kon ndawu yàlla dañ koy jàppee ki ko yónni kon moo tax mu ne kon topp leen ma su leen may topp rek yàlla bëgg leen su ngeen ma déggalee rek yàlla bëgg leen te bu leen bëggee jéggal leen seeni bàkkaar yàlla mooy jéggale mooy yërëme kon amul keneen moo tax mu indi al mubtada wal xabar wallahu gafurun rahim yàllaay jéggale yàllaay yërëme ki muy jéggal mooy ki topp ak yonentam ki muy yërëm mooy ki topp ak yonentam kon fokk rek nit bu bëggee loolu jaar loolu kon aaya bi dafa leer naññ aayab ñaareel gannaaw fi topp la wax topp yonent bi kon aya ñaareel lu muy leral moy baña top topp bi waxal nag topp yonent bi lan moy résultat bi be mu bëgg la waxal nak bañ ko top itam lan moy résultat bi borom subhanahu wa taala wax ñu ne ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصلح جهنم وساءت مصيرا لا حول ولا قوة إلا بالله قلن ياري علي مقابلة مو مقابلة وإذا الله فاتبعوني مواخلة رزي الكابي ومن يشاقق الرسول مواخلة رزي الكابي كي تطو يننتبي آية دي يومنا كي بيال يننتبي shaqiq lañ koy digal duñ ko def lañ koy tere du ko bàyyi waxam amul valeur ci moom kooku daa bañal yonent wa sallam te bam ko bañalee nag wa yattabi gayra mu jël yoonu boppam bu wuuteeg yoonu sahaaba ak ña toppoon sahaaba mu jël yoonu boppam غير سبيل المؤمنين المؤمنون الصحابة مي مومو نجل بنين بايبو لكن لي موي جامو يالا صحابة يخبون كو لن كو ديغلون نيكو تيا لن كو تريون باي مو كو خجلنا كون ويتبي غير سبيل المؤمنين mu topp beneen yoon bu bokkul ak mbooloo julli yi te boobu mooy saxaaba yi nu wallihi maa tawalla waaw mu ne ñu topp loo ko la mu topp du loolu la tànn mu ne ñu bàyyi ko ca loola ndax bàyyi bi bàyyi ne ko demal rek mu ne déedéet lan moo ñu woon ne déedéet wa nuslihi jahannam mu bu ñëwee nag man koy dugal jahannam loolu la def parce que lan la def bañal na yonent bi sallallahu wa sallam jël na yoonu boppam bu bokkul ak bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale woon moom mu jël mbiru boppam mu ne aa kii daal dañu koy bàyyi ca lamu ne waay safara nag lañ koy jëlee mu ne àkkee safara ñaaw na àkkee àkkee safara wa saat masira safara mu ne àkkee boobu ñaaw na de lu xam nañ àkk maanaam nit ki bu demee ba suuf amatul ifi ñu ne àkk na wala fañ la yemloo woon ñu ngi course ñu ne fii la bu ñëwee ba foofu course bi jeex na parce que àkk na mu ne moom nag fa mu àkkee mu ne foofu lu ñaaw la de di daw rek mëlëb ci safara ah subhanallah mu ne loolu bu la waxul ñaaw na sax xam nga ne ñaaw na métti na mu ne lii moo koy indi nag mooy wuuteeg yonent bi sallallahu alayhi wa kon yooyu yëpp tegtal la yu leer boobu mooy aayatu nisaa waaye am na beneen aaya it bu koy gën a buy feddiliwaat ci beneen anam fii topp yonent bi la nangul ko ñaareelu aaya bi bañal yonent bi te bu ne gis nañu résultat bi mais bii ñëw ci lan la day méngale ñaari aaya yooyu borom bi subhanahu wa wax ñu ne qul atiu llaha wa atiu rasula fa in tawallaw fa innama alayhi ما حمل عليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين كنا يسكن الآية دي da am lu mu saxal gën koo feddili mooy lan atiu llaha wa atiu rasula mu def ko ci même degré na ngeen déggal yàlla mu indi baatu taa na ngeen déggal yonent bi mu indi baatu taa wa ulil amri minkum seeni kilifa wa asqata kalimata taa baat bi mu dindi ko limaada li anna taatahum taabiatun li taatihim li rasulillah wa tabaraka wa taala mu ne parce que kilifa yi duñ leen déggal lu dul dañu déggal yàlla ak yonent bi moo tax baatu saa bi ñëwul parce que ñoom seen seen loolu balaa ñu koy am foog ñu déggal yàlla déggal yonent bi mu war nag ci xeet wi ñu déggal leen Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu bañ la fedd li wa atiuni ma ataatu llaha wa rasulah ah ma lu war feek maa ngi ci li yàlla digle maa kon déggal ma jaamu yàlla la luy war la wuuteeg man sanction lay indi ma ataatu llaha wa rasulah kon loolu lan lay indi day indi manhaju ahlu sunnati wal jamaa mooy fonk kilifa wammatu ci kilifa dëflul kilifa moytu njuumte kilifa loolu mooy manhaju ahlu sunnati wal jamaa doo gis mukk weer kilifa doo gis mukk ñuy rëbb kilifa ki ci askanalee boppam te xamul programme bi abadan yaduuna la dañ koy dal di dañ koy dal di ñaanal waaye nag su jàddee ba ñépp xam ne jàdd na xaalafa al amra wa abaaha nahya laa sama wala taa bu demee ba safaanu ndigalug yàlla nag ndigalug yàlla bi dootu ko def tereeg yàlla bi mu digle ne nañ koy def ah teer boobu laa taa teer boobu dañuy wax ne laa taa kon aaya bi leeral na bu baax a baax a baax a baax kon nañu déggal yàlla nañu déggal yonent bi waaye nag fa in tawallaw suñu bañee nga woo leen ci yàlla nanguwuñu nga woo leen ci yonent bi sallallahu alayhi wa nanguwuñu kon mu ne yow yonent bi sallallahu alayhi xamal ne lañ la yen nga yénu ñoom lañ leen yelloo la ñuy yenu yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lañ la yónni digle ko nga jëfee ko ku nangu moo xam ku perte moo xam digle ko nga jëfee ko moo tax borom bi subhanahu wa taala leeralal fa innama alayhi ma ummila ah yonent bi moom liñ ko digal ci lool la ne ci loolu lañ koy atte waaye yéen ñii itam wa alaykum ma ummiltum mais itam day war ci yéen li ñu leen digal ci taatullahi wa rasuli waaye nag bu feet bi ni waat fale daa wax nañu topp yàlla nañu topp yonent bi mu feet di ni waat bopp yonent bi wa in tuti uhu tahtadu xalaas mu ne feet yéenan ko topp di ko déglu mu ne waaw mu ne yéen a ngi ci njub mafamu mu xaalafe bu may lan bu ngeen wutee moom nekkatu leen ci njub moo xam ci colin moo xam ci lekkin moo xam ci jëflante moo xam ci jikko moo xam ci jaamu yàlla su ngeen wuuteeg moom rek nekkatu leen ci njub li nga jël ba wuuteeg la mu wax rek xamal ne loolu du njub booy dugg ci jàkka looy wax bismillah wa salaatu wa salaamu ala rasulillah aftah lii abwaaba rahmatika mu dugal ban tànk man xaalafahu fi dalal këpp ku wuuteeg loolu wax leneen lu bokkul ak loolu réer nga li nga nekk nekkatul njub mais moom li mu wax rek mooy njub jiital ndeyjoor wax wax xam ne moom la wax booy génn jiital càmmooñ nga xam ne moom la wax moo xam da ngay war moo xam da dugg sa néeg moo xam toilette moo xam kër ga moo xam da ngay génn lim la jàngal loolu mooy njub soo ko bàyyee loo mun a rafetlu ci àdduna boo ko defee lay sa hudan nekkatul njub lu tax lu tax nga wute yonent bi ah du nga yàlla wóolu nga yàlla bëgg nga yàlla moom la yàlla yónni mu ne la lii la yàlla digle nga ne yow defoo loolu ndax topp nga ko abadan wuute ak moom moo tax nekkoo ci jub la nga nekk nag imma ñu tuddee ko bid'a mu nekk bid'a parce que yaa ko sosal sa bopp kenn sant la ko wala mu dalaal mu nekk ab réer wala mu nekk ittibaa'ul hawa topp sa sago mais yooyu yëpp xam nga fu muy mujjeeg boromam mooy alak ko yàlla nañu ci borom bi tabaraka wa taala euh, musal mu ne nag bàyyi leen xel nag yonent bi jot li dong lañ ko santoon wa ma ala rasuli illa al balaagul mubin du balaag rek de waaye mubin mu ne yonent bi nag lenn dong dong lañ ko sant mu ne liñ ko yónni na la ko leeral ba mu leer nañ yonent bi ba muy jóge aduna laaj na nañ ko yónni woon mooy hijjatul wadaa ay junni ci ay saxaaba mu dajale leen ci diggarees ala hal ballagtu mu ne maa ngi leen di laaj de ndax li ma yàlla yónni woon ndax yegg na ndax leeral na ñu ne ko ballagta leer na yegg na wa addayta al amaana kóllëre bi la yàlla joxoon mu ne jëfee nga ko de waaye wa nasaxta al umma leeralal nga ñu mu ne allahumma ashhad yow borom bi subhanahu wa taala laaj naa lii wax nañu seedeel ma ko yow yàlla ban aaya moo wàcc al yawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islaama diina kon yàlla seede na mu ne bés ni ki tey ñu ne waaw mu ne diine mat na mu ne bés ni ki tey ñu ne waaw mu ne yoon nit yonentu jeex na mu ne bés ni ki tey mu ne waaw mu ne lu lay yonent bi sallallahu alayhi jox man yàlla bëggee naa loolu ñu jaamoo ma ko imaamu malikin mu ne keroog li bokkuloon ci diine bi ba bés sañ ci mënatoo ko boole ci diine bi parce yàlla seede na jeex na diine ji mat na kon yow li nga indi lu muy tudd ndollat c'est rejeté dañ koy rejeté ndollat la ndollat boobu la yonent bi sallallahu man ahdata fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa radd képp ku dolli ci suñu diine ji lu ci bokkut lu ci bokkut mooy gannaaw ba yàlla seedee loo ci dugalaat bokku ci mu radd dañ ko koy dañ ko kon loolu jullit yi da ci war a bàyyi xel yow li ngay jaamoo yàlla est ce ba yàlla di seedeel yonent bi sallallahu alayhi wa boobu façon jaamu yàlla boobu amoon na kooku nit ku ne da ko war a posé boppam doo toog di coow nii rek jàpp da ngay coow rek la la la la romb na loolu da ngay lii may def lii may jullee ndax lii la Moustapha doon jullee ak sahaaba bu dee waaw anta alal xaq bu dee déedéet anta fii hadas bu dee déedéet rek yow da ngaa parce que moom jàngal na leeral na lépp nag noonu la demee ca pas-pas baag ca jikko yaag lépp da ngay sa bopp question bul nax sa bopp parce que moom la yàlla yónni de ku fi am daraje yàlla yónni wu la de moom la yàlla yónni du yow moom la yàlla toppaloo nit ñi du yow moom la yàlla di laaj nit ñi bu keneen kon jullit bu ne dafa war a bàyyi xel ci loolu loolu mooy manhaju ahlu sunnati wal jamaa wax loolu nag firiwul dii nag keneen yaa yàlla daa yónni keneen ci ñu ko dul muhammad kon kan nga dii nga ah kan nga dii nga te loolu yow dii nga tooke yonent bi la ñu royloo daf ñu royloo keneen ko dul moom loolu di nga na kan la di nga yonent bi lañ lay laaj parce que keroog du ñu ne kenn kuy sa baay kuy sa maam kuy sa nangam abadan kan la ñu yónni ci yow loolu la ñuy laaj te boo tontoo ku tuddul Muhammad musiba dal na la kan lañu ñu yónni ci yow nga ne biraan am nga problème de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam la ci ñun lu wax ñu diine bi ñu gëm ko jaamu ko ñu ne ko sadaqta ah yow wax nga dëgg de wax nga dëgg de mais yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne am na ñu ñuy laaj dañuy échec laaj laaj laaj ah ana samitu nnaasa yaquluna wa qultu kooku xamul ko ñu yónni ci yoon ah man déggoon naa nit ñi di wax rek ma wax de dama déggoo rek nit ñi di wax man ma wax kon kooku xamul kooku xamul kon yooyu nañ ci dal di bàyyi nañ ci bàyyi xel kon yonent bi jottali na saxaaba yi seede nañu ko tabaraka wa taala seede nañu ko kon jottali na loolu mu jottali yàlla sàmm na ko bi fii ñu toog loolu ci càmmuk yàlla la ni mu sàmmee alquranul karim noonu la sàmmee sunna tey hadis boo mën a yëkkati man ngaa xam wér na wala wérut mais loolu yàllaa ko sàmm bu dul loolu munta ne na nit wax na nga rek nga tapé Google la hadis bi hadisun mawdu hada maqzub hada hada ba mu leer nañ nga xam ne hadis bi bu wér la wala hadis bu wérut kon boo toppee lu wérut yaa tooñ sa bopp mais kenn tooñu la yaa ñu di wax yonent bi la mu wax bari na ñu ñëpp fekkee wuñ ko woon d' accord weerante wuñ ci loolu la muy wax bari na ñun ñëpp fekkee wuñ ko woon loolu weerante wuñu ko mais tax yow li jóge ci yonent bi nga weddi ko li jóge ci biraan nga safal ko di ko jaamoo yàlla da fekke woon biraan ba muy waxoo jooju muy wax da nga xamoon lan moo tax mu wax ko mais boo na mais werante ne mayeeg yàlla yaatu na moo tax mu may yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom dong laay déey moom dong laay laaj nit ñi moom dong la royloo nit ñi xalaat parce que bu yaatu bi moo tax mu tànn yonent bi def ko loolu hakaza kon nit ki seytaane bu mu ko gañee mu nax boppam lolou moy nax sa bop lolou nax sa bop la ci dundu bu gàtt bu tuti dundu bobu jàll nak nga joteeg sa borom kon nañ ci nañ ci bàyyi xel kon aya bobu moy ayatul nur suratul nur borom bi leralat ne wa anna hada siraati mustaqiman fattabi'uuh wala tattabi'u subula فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون امت الايه بغنا ليرلي يلا ليرل وان هذا صراطي مستقيم يلا بني لي مي لول مو جوخون خمكو مي القران الكريم مي سنه يونس صلى سنة عليه وسلم لي غني واو مو ني موي يون من يالله fattabi'uuhu topp leen yoon woowu de wala tattabi'u subul ngel la waay bu leen topp yoon yu bari kuréel yu bëri woote yu bëri teqale ko yu bëri mu ne bu ko topp de toppal bii mu ne la bul topp lële moom mu wax la mu leer mu ne bés boo ko toppee mu jàdd loola sama yoon wi parce que xattaani mutawaaziyaani laa yaltaqiyaani abadan illa binxiraafi ahdihima deux lignes du ñu daje mukk lu dul benn ci ligne yi moo jàdd deux yoon bi yàlla ne mu ngi nii yeneen yoon yi kuréel yi génne deux lignes bu ñu demee ba daje xamal am na bu bàyyi itinéraire am fekki beneen bu dul loolu mënuñu daje abadan kon loolu moo tax mooy attention de moytul mu ne loolu boo ko defee rek def lay jàdduloo yoon yi nag parce yeneen yi nag dañ koy ñagee ay bànneex dañ koy ñagee ay wax yu taxawut dañ koy ñagee digle loo moomut dañ koy ñagee wax loo xamut loolu dañ koy ñagee kon loolu moo tax ñu gën a bari maas yi gën a bari daw jëm ca loola li nga xam ne noonu la yonent bi sallallahu alayhi wa wax mu ne la lii nga xam ne mooy aljanna xuffat bil makaarix mu ne aljanna dañ koo wóorale lu bari loo xam ne bakkan dugg moo tax ñu koy daw waaye safara nag lan lañ ko wóorale bil malazaat ci loo xam ne bakkan da koo bëgg fen caaxaan sàggan jël alalu jàmbur bit doo ko defee tappale caay-caay loolu la ñu wóorale bànneex bugg loolu topp ci loolu rek ba muy jeexee rek wa saat masira kële na topp ko di muñ di lay xas di la tuutal di la xeex di la song di la boddi نعم مني بدر تلول آه بدل التمر غني وحسنت مستقرة حسنت أوه من في مفلة ما شاء الله في مفلة ما شاء الله وعينت وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم ونكمل لك ما هو منع نيل الله يموي نيجي نجل جهلا أمي يوم نيل laa la la abadan déedéet da ngay ñàkk dara mu ne la muñal ñu tooñ la mu ne la muñal nga feebar mu ne la muñal nga am naqar mu ne la muñal haada loolu mooy muñal mais bu jëlee jox la dañuy tàccu honoré mbir mi du foofu de kon loolu nañ ci bàyyi xel kon yii ay aaya yu leer naññ la borom bi subhanahu wa taala mu ne man nag lool laa leen dénk de ngir ngeen mën a moytu zalikum wasaakum bihi laallakum tattaquun loolu laa leen di dénk ngir ngeen mën a ngeen mën a moytu ay bari nañu bokk ñu te ahadis yi des na mais nañu mujj rek euh, aaya boobu ñu génn mooy ayatul an'am ñu delluwaat ci ayatu ali borom subhanahu wa taala wax ñu ne wala takunu tafarraqu واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم ولا تكونوا بلن نيرو أم ين يجا خمنا لن لن تفرقوا واختلفوا ñi nga xam ne dañu wute dañu teqale ko lan moo tax ñu wute teqale ko ba dëgg ñëwee yuhaziruna ma asaba alyahud wa nasara mu ñuy moytuloo li nga xam ne moo jotoon alyahud wa nasara ñu unir mais ba ñu yónnee muhammad rek brr ñu daje nekk ci benn mbir mais ba ñu tëralee benn aaya rek ñu tasaaroo kañ la ñuy tasaaroo mu ne ba dëgg ñëwee mais dëgg kay dafa war a dajale mais mu ne bu leen mel ni ñooñu loolu jikko bu bon la jikko boo xam ne bu ñu waxee dëgg rek teqale ko jamono jooju tey la ñuy dund boo waxee dëgg rek wéet kooku mu jarrab kooku ñëpp a ko nattalu ñëpp a ko essayé ñëpp ko xam même boo nekkee jaaykat bu dëggu sax nit ñi bala nekkal jaaykat bu dëggu rek nit ñi bala faqat dañ lay baax il faut nga ne ko fan nga ñëw jënd rek mu ne la waaw nangam de nga ma ko jaayee waaye defal ma facture bi nga ne ko ah man loolu loolu duma ko jëflante de dootul ñëw ci yow lu tax dootul ñëw ci yow parce que da ngaa dëggu faqat amul leneen ah man doxuma ci yooyu de naa kon nag yow nga jàpp ne ñàkk nga client ñàkkoo da dëggu mais léegi nag yàlla nattu la nga toog wéet rek wéet wéet ba mu yàgg nga ne ah bi kat loolu mooy nattu te ñun ñëpp loolu la dund ah bu fekkee mbir dañ koy dund ba mu yéeg ba ci sommet de l'état ah mais loolu xamal ne nekkatuñ caaxaan de surfacturation du loolu la ñuy coow ku dëggu dina ko def ku maandu dina ko def ku jub dina ko def surfacturation boobu ba pare après écart bi fu mu jëm écart bi fan la jëm ci poosam ah moo tax mu nekk musiba nag te ñun loolu dañ koy dund am na fi ñu seen marché yàqu loolu moo ko yàq da ngay facture mu ne man loolu du ma ko def ne kon dootu ma la jox marché ah dootu ma la jox marché xoolal rek xola rek mbir moomu xam nga loolu boo ko seetee loolu loolu fitna la loolu musiba la kon yooyu yëpp borom bi subhanahu wa taala mu ngi koy joxoñ mu ne bul mel na ñoo ñooña ñooña mooy ñan ñi nga xam ne dëgg moo leen di teqale min baadi ma jaahumul bayinat mu ne ñooñu nga ne waaw mu ne lahum azabun azim ñooñu dañu am bugal bu metti de ahyaanan yakunu al azabu fi dunia ahyaanan fi dunia bi tasxir wal ishaar wal ihana wal daawa wal sujud kooku ihaana dunyawiya la léeg mu torox ci aduna ci lan laay torox ci aduna nit ñëpp xam kii nii la mel ñu koy xas léeg-léeg muy am ay plainte léeg-léeg ñu àtte ko dugal ko kaso mais loolu bugalu lan la dunya bu aduna bi la nag boobu joteelu ak dara bu àllaaxira bi naam mu dem ba àllaaxira taxaw bu jóg taxaw nag dix huit millions sénégalais taxaw na ko waaw sëñ bi suñu alal bi nga jëloon nag parce que alal alal réew la waaw alal boobu nag ku nekk taxaw nag naan sama wàll kooku dina texe mais loolu heure ba muy def wax jooju moom yow boo ko doon wax loolu sax jàpp na ne yow da ngaa tardé du la déglu du la programme jàpp na ne yow da ak tardé jàpp na ni da ñàkk fulla jàpp na ne da ñàkk bopp fekk moom moo tardé moo ñàkk fulla moo ñàkk bopp te yëgu ko kon yii yëpp jullit bi da ko war a bàyyi xel xam ne anam la yoo xam ne yu dëggu la mooy aayatu ali imran am na beneen aaya boo xam ne ci la yem mooy aayatul an'am aaya yi dañu bari lool waaye daa tënk yii rek inna alladina farraqu diinahum wa kaanu shiyaa لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون لي امن نفرغ لهم ده فاستلي الله وحشي لجنه من لبولبوك بولبوك يرجي غنوابون بولن بوك لطا mu ne ñi nga xam ne tekkale nañ seen diine séddoo ko la yàlla wax de lan la ñu tekkale farraqu diinahum diine bi lañu la ñu morcelé mos naa dégg benn daaiya macha allah euh, ayyadahullah Cheikh Ibrahima Khalil Lo ku déggee ni moom Qur'an ku manee ni moom misaal Mende yon nan. Monsa dek yo mounen Senegal da men ni, yal la da defon apel dofur ki diyo di, am yu ko ganyen. Apel dofur, am yu ko ganyen. Le g le yu yut, ay sou tretan. Ah, moun kou ganyen, moun ganyen apel dofur. Le g le yu yut, kou kou ita kwe, moun am ay sou tretan. Ki diyo di. Ti lon la di yal la tretan wap? inna alladina farraqu wa kaanu ñi tekkale ko ci seen diine nekk ay mbooloo chia mooy ak jamaa mu ne yonent bi yow laay wax de lasta minhum fii ne yow Muhammad yow laay waxee nag mu ne ñooñu mu ne waaw mu ne bokkatoog ñoom dara dañuy jël seeni yoon daw nekkal ci sa yoon yoon bi mu waxoon fële ca gannaaw wa anna hada lasta minhum fii shay yow bokkatoo ak ñooñu ci lenn nag fii mu ne ñooñu nag bu ci sonnal sa bopp lu tax bu ci sonnal sa bopp ndaxte innama amruhu ila allah mu ne ñooñu yàllaa méngoo seen i mbir ñooñu yàllaa leen di atte teel sa gémmiñ ca ñoom bàyyi leen bàyyee leen ak ki la yónni mooy tabaraka wa taala bul diinat bul xaste bul def dara yow la nga gëm ne ca nga noppalu loolu la wax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam innama amruhum ila allah mu ne ñoon seen mbir yàllaa ko méngoo du yow de mu ne waaye nag yàlla summa yunabbiuhum bima kaanu yaftaluun bunne ne bu newee ba yowmal qiyaama nag yàlla dina leen woo nettali leen la ñu defoon yow itam yàlla dina la woo nettali la la nga defoon kon bàyyee ko yàlla bul xaste bul diingat bul weer bul xudoo bul saaga bul dagg bul atte surtout bul atte innama amruhum ila allah mbir mi bàyyee ko yàlla yàllaa xam yàllaa man yàllaa sañ bàyyi ko ko yow doo attekat bàyyin yow li nga gëm dëgër ca bu la kenn fab bi bu la kenn yóbbaale mais sa làmmiñ bi moom loolu mooy manhaju ahlu sunnati wal jamaa gis nga jikko boobu ku ci ne yu ayiduhu llah yàlla dina la jàppale ku ci ne yàlla dina la jàppale yàlla dina la sàmm yàlla dina la aar parce yaa ngi ci njub yaa ngi ci ndigalam kon mbokk yi lii lenn la ci aaya yi joxoñ jàpp naa ne waxtu bi dab nañu wala des na ñaata minute ah d'accord kon ñu laal ci hadis yi tuuti rek bu ñu fàtte nag benn paragraphe rek la ñu jëlagum ci li cheikh bi wax ñu fàttali paragraphe boobu dafa am solo lool mooy dañuy topp sunna ak sahaaba yi dañuy moytu beru dañuy moytu wute dañuy moytu teqale ko ci paragraphe boobu rek lañ nekkoon aaya yi yépp ci loolu lay wax mais bu ñu demee ci sunna dinañ gis ci nettali al irbaad ibnu sariya radiallahu anhu muy hadis boo xam ne hadis la bu fës lool bu bokk ci al usul addiin bu bokk ci qawaid alsharia cosaanu diine ak tëralinu sharia moom irbaad ibnu saariya radiallahu anhu mu ne benn bés يونتي صلى الله عليه وسلم وارنيو وعزنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة من يونتي صلى الله عليه وسلم دفني وار وارات بو خمني وارات بو متللا وارات بو جوت لبا ظرفت منها الأيون ووجلت منها القلوب من بقي صوتنا نيو أي غنغوي من خلي يغتنا جوارات ابن النبي صلى الله عليه وسلم كرو فقال قائل من يجيب دبلو وارات بي كن نتي يوم جوك صلى الله عليه وسلم يا رسول الله كان هذه موئذة مودئي من يوكي الله يومي من يكو واو من يكو من سوارات بيغا دفتي من واو من آه من وارات كوي تغطو ناجي waaraate kuy tàggatoo mu ne waaw mu ne man loolu laa dégg de mawizatu muwaddiin dénkaane koo xam ne day tàggatoo kon nag gannaaw da ngay tàggatoo fa maada euh, tuaxidu ilayna mu ne waaw léegi nag ban kóllëre la ñuy fasante wala lan nga ñuy bàyyee gannaaw man gën naa ne dangay tàggatoo mu ne waaw mu ne loo ñuy bàyyee yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxul ca wax ja dangay tàggatoo wala tàggatoo déedéet yonent bi dafa vocalisé wu ci lim leen di bàyyi parce la waa laaj kon noppi yonent bi saxal na ne waaraate kuy tàggatoo la mu ne ko usikum bis sam'i wa taa fa innahu man ya'is minkum بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعدوا عليها بالنواجس وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة ونقول لما لدي دينك موي ما لدي دينك ديك الطب bu ñu waxee def leen def leen bu ñu waxee bàyyi leen bàyyi leen ndax këpp ku gudd fan ci yéen ñam doon waxee ci saxaaba yi ñi fekkee woon waxtaan ba mu ne ku gudd ay fan ci yéen dina gis wuute bu kéemaane da gis wuute bu jéggi dawe ci diine jii loolu bu yegsee la ma leen di digal mooy leen ci sama doxalin ak doxalinuk ñama wuutu di jubal al khulafa rashidin al mahdi ñu tënk leen ci ñeent mooy abubakar omar usman ali ridwanullah ali mu ne lii laa leen di bàyyi bu ngeen demee ba teqale koo bi ñëw wuute bam leen waxoon ñëw mu ne dellu leen ca la ma leen jàngaloon li leen abubakrin waxoon li leen umar waxoon li leen Ousmane waxoon li leen Ali waxoon tamassaku mu ne na ngeen jafandu na ngeen jafandu ca loola ndax ci jafandu ngeen di mu ne déedéet wa addu alayha binnawaasi mu ne bu ngeen jàppee ne bu ngeen téye seen loxo day rëcc mu ne matt leen ko ci seeni dëddu na nga téye matt ngir mu bañ a mu bañ rëcc <laughs> maa ngi fàttaliku benn mbir du ko fàtte daa am benn dëkk ba ma soog a ñit si ñu yóbbu ma fa jàngale léegi nag korite ñëw ñu dem ca julleekaay ba julli ba pare benn mag jël parole mu ne lenn laa leen di wax nag yéen ñépp nag ku nekk la nga façon te nga xam ko mu ne dugal ko ci say dëgg nga matt ko ndax dëkk bi am na fi ñoo xam ne boo sàgganee mu dugal baaromam lukkati ko <laughs> la hawla wala quwata illa billah ndeysaan hadis bi ñëwaat ci man Irbaad ibn Sariya gis moom itam loolu la wax leen ko ci seen i dëgg sinon danañ ko luqarti fii lan hakaza naam fii lan la waxoon mu am fii lan parce que leer ak lëndëm du ñu ànd yaa axi leer ak lëndëm dinañ ànd te réer ak xam-xam dinañ ànd dëgg ak caaxaan dinañ ànd abadan loolu du ànd kon la mu waxoon wax ju dëggu la de ju dëgër këm loolu la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam fedd li fii da nga koy téye màtt ko ci say dëgëj ngir mu bañ a ngir mu bañ a rëcc mu ne la nag maa ngi leen di moytuloo muxdasaatul umuur mais maa ngi leen di moytuloo la ñuy sos sama gannaaw nga xam ne jàngale wu ma ko xulafaa u raasiduuna jàngale ko mu ne maa ngi la koy moytuloo ndax lépp lu nekk ca loola bid'a loolu bu ñëwee lépp loo ko gis mu ne na nga xam ne bidaa la yemul ci bidaa dafa wax ne fa inna kulla bidatin dalaala lépp lu ñu sos te du diine ñu boole ko ca diine ja mu ne réer la parce que dana la tere sunna li ñuy jàngale booy dugg ci jàkka ji fii keneen jàngale la safaan nga moom ah, bàyyi lañ la jàngale nga jël li keneen jàngale reyuloo sunna mais rey nga sunna booy dugg sa oto yàlla jàngale wu na ngay wax لأنه وإذا استويتم على ظهورها سوي يك سوي وع سوي دب سوي دف لا سبحان الذي سخر لنا هذا أها وما كنا له وإنا إلى ربنا يوم نجرب شبرك بيو خالفت أو ما خالفت خلاص léegi ka wax loola moo tumaranke kooku nekk charge ci sa gisin yow nga wax loolu rek kenn toog wax wax ji rek da nga koy xoolaat nga ne kii day diingat yow yëgoo ne yaa yàqu yaa riir yow yaa yàqu yaa riir bàyyi cosaan toilette boo sogee dugg day xesew am déet mais am fa une minute da nga yëgati yaa yàqu mais nature bi mu nekkoon moom mu ngi ci ba léegi nature bi mu nekkoon soppeeku moom loolooy nature am mooy xet mais yow yaay dem nag ba sa nature soppeeku nga adopté xet googu dootoo yëg ne xet la mais yaa yàqu keneen ku bees bu ñëwee dem la woowu yow fii dafa xesew de nga ne ko ah non yow yow yow yaa yow yow sa bakkan baaxut mais fekk yow sa bos a yàqu <laughs> loolu il faut ñu bàyyi ci xel borom xel bu nekk bu seetee loolu kon mbokk yi ci benn hadis boobu lañuy ñuy ñuy ñaan borom bi subhanahu wa taala na ñu may fekkee ak tal ñu mun a mottali hadis yooyu dugg ci beneen paragraphe kon ñu ngi sant yàlla ci dajewaat bi jazakumullahu xayran wa salaamu aleykum wa kon mbokk yi ñu ngi gën di feddiliwaat sant borom bi subhanahu wa taala borom bi lu nekk rek da koy planifié darsu bi tey mooy dix-huit jours darsu amul borom bi baaxee ñu ñu weddi dajeeg darsu bi muy darsu tawxid darsul aqida darsu manhaj ahlu sunnati wal jamaa fekk xol yi yàkkamti woon nañu nammoon nañu darsi eh, wéetaloon nañu borom bi baaxee ñu ci ni mu planifié ñu tàmbalewaat ci lii kon lii dañ ci war a sant borom bi subhanahu wa taala bu baax a baax kon sant nañu ñëpp gërëm nañu ñëpp ñëpp nañu ñaanalante yàlla defal ñu tawfiq naam waaleykum salaam wa non. mi nanani ɗon de mhm. Mhm. mu ne daa am koo xam ne mu ne soxnaam daa am doom waaye doom ji dundut mu ne waa ji nag moom mu ne doom ji dundut waaye dina ko tudd mu ne mu ngi laaj loolu moom lan la ah bëgg-bëgg boppam la de waaye charia moom ku muy tudd kan laay tudd bu fekkee fii Sénégal la nag xale bu faatoo hôpital bu fekkee ne dañu bind ca kiibam moor ne maanaam ba muy ñëw àndul ak bakkan kooku dañuy dem rekk suul ko mais bu fekkee àndoon ak bakkan nag dund lu bés walla leneen boo demee mairie pour ñu defal la foog nga joxe tur bu dee ca anam googa laay wax moom waaw waaw day joxe tur pour ñu mun koo suul mais bu dee moor ne duñu laaj dara budé mom moom da am doom mu dé mu ne dé koy tudd ah kooku bànne ko bopam la def mé du sharia ku dundu la ñuy mé né ko ku dé exception la ma wax fële nak parce que lolu administratif la allahu alam naam naam waaleykum salaam wa rahmatullah عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين borom euh, xam yi borom xam yi wax ne ñoom ñett lañ moo nekk autopsie bu ànd léegi foofu mënuñu ko déggee euh, ay buur wala dañ leen di jàppee comme ay ay ay xulafa. waaw. loolu moom mooy laaj beneen ñaari laaj ki nga xamante ni dafa am yëg-yëg comme ça jékki-jékki euh, rek xalaat ni xëy na dafoo comme ñu ko wala ñu am passé dañu nga ko tudde yàlla téeméer yoon exemple astafurlah téeméer yoon day gis a ci teex mu koy des yëmale ko ci boppam loo xam ne dafa ñëw wax ko nit ñi wala di ko ci woote wala nangam ñetti laaj la waaw mu ne xulafaa urrachidun almahdiyun mu ne am na ñu koy yemale ci ñeenti ñi looloy dëgg ci ahlu sunnati wal jamaa ñeenti ñooñu la mu ne ndax ñi ñëw seen gannaaw dañ leen di tudde ay buur wala ay xulafaa xam nga baatu xalifa lu yaatu la mu naa nekk ci njub mun naa bañ a nekk ci njub له خلف من بعدهم خلف أداء الصلاة وَاتَّبَعُوا واتبع الصحوات نين انتو دي دو خلافة من خلافة بباقو كون خليفة مو يكبتو كن يوتي جنناو يلف درا منا دك خليفة واي أمر درا جنات الرافدون المهديون فاسن يوني ممتن كو تنك يونتو صلى الله عليه وسلم avant mu fi jóge waxoon na ne bu ma fi jógee day am alxilaafa rachida ci riwaayu ñu tënk ko ci salaasuun sana ci li nga xam ne mooy fanweeri at gannaaw ga mulkun aduut nguur goo xam ne subhaanallah mais boo seetee Euh, banu umayya presque fi ñu jeexee ci ay trente deux ans la normalement luñ leen mën a wax ñoom moom nekkoon nañ ci xilaafa boo xam ne day nekk xilaafa islamiya donte doo ko tuddee xilaafa rachida ci waxin mais day nekk xilaafa islamiya kon li ñu bëgg a leeral foofu mooy képp ku jiite dara rek xalifa la ca loola mais ñi ñu seedeel nag ci ñëpp la ñu ne ñooñu ñeent ñi lañ ci tënk nit ku am yëg-yëg tudd na ay baat baat yi nga xam ne kenn mënu koo tënk parce que nee na ilham da ngay xam ko mais kan moo la ko xamal foofu la problème bi ne parce que seytaane yi aussi yàlla waxoon na yuuxuuna ah wala mais iha boobu iha la nooy ràññee iha bu jógee ci tabaraka wa taala bu jógewul ci tabaraka wa loolu ahlu sunnati wal ñoom dañ koy jéem a tënk ci salahul mar nit kooku ci ab tënkoom bu nekkee ci bidaa dañu naan haada iha u seytaan waaye bu nekkee ittibaau sunna ittibaul kifaas ah kooku munul jeexal li yonente sallallahu alayhi wa sallam tënk ba muy tënkal boppam ay astaxfirullah wala muy tënkal boppam leneen parce que li bi jàngale munu koo jeexal abadan day def ba sonn rek mu bàyyi ko fi waaye ba mu demee ba loolu doyatu ko moom yëg-yëgu boppam moo ko doy foofooy musiba foofu mooy musiba bi musiba bi nag mën naa yaatu mën naa tuuti bu tuutee mooy mu doyloo moom ci boppam xalas moom ci boppam mu doyloo loola bu demee ci àllaaxira lu mu am jël léeg-léeg moom mu ne da gis boppam da ñaan gis ko da muslu gis ko mais gars yi daawuñ ñaan ci laata gis ko doon naa amul amul ci usa daawuñ ko gis Mana ata da ou yote gis. Nikis samte bop mbirem betan bifi. Deflo hamilou yi toum la. Defwa dem gis, eh, eh, defwa dara gisko. Mana, kon gis bin kwa yi gisan limuchi, gis bopan jote ou, darat flou. Darara jote ou. Jote bimou yi jote. Mweni fi yonen tupi sanon alkan nan bay nan adoyi. Sa yet yedou bopu. Tou malal sa bopu san niko chekat. Jel yet yet. jëw gis-gis jàngale bi nga xam ne moom la fi Moustapha sallallahu alayhi wa sallam def ndaxte boo ko deful rek danga dem ba génnee loola da nga dem ba gis ne dara la da nga dem ba yëg ne xam-xam la te kulluhu dalaal lépp ab niir la du dara yàlla daa yónni yàlla daa bind yemal ci li mu bind yemal ci ki mu yónni nga dal di allahu aalam naam kon bu mujj insha allah ñu ne waxtu bi jot na wasalaam ram dégguma de mu ne daa am aajo di sàkku ci mbooloo mi ñaan yal na ko yàlla fajal aajoom fajal ñu suñuy bos yàlla nëbbal ñu suñuy sikk te jéggal ñu wa ma zalika ala allahi bi aziz asalaamaaleykum wa rahmatullah yàq bi doxantu lay la yàq lay